jërë ngeen jëf kilifa gu baax ga ca Tiwaawoon mbaax gi mu xam ci Macky Sall ba wax ko yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu ko waxaat bi l'observateur ci wattaayu gàmmuk ren gi président Macky Sall ma nga woon démb ca dëkkub Seydi Hadj Malick Sy bi mu di ca Tiwaawoon yéenekaay bi nañu gisee na fa ak Serigne Baye Sy Mansour mu di xalifa général des Tidianes Serigne bi dellu foo rafetlu jikko yu baax yi mu ko xamal moom Macky Sall nee na ko ku am ab yar nga nit musula dégg nga génne ci sa gémmiñ gi wax ju ñaaw loolee nag na nga ca sax bu la ci dara jëlee les économies yu mu njëkk Serigne Baye Sy Mansour nee na Macky Sall jikkoy njiit nga yore ndax yaa ngi jëllale jikkoy njiit nga yore ndax yaa ngi jëllale kenn du la dégg ci yaa ma nekk maane la xuloo woo xeexoo noonu la nag ndax ay nit boo leen jiitee da nga leen di tane te nit koo xam ne yàlla moo ko tànn fal ko bu àdduna bi yëpp maa ngi ko woon di ko xeexit duñu ko mënal dara journal bi nañu ba Macky Sall demee ca Tiwaawoon démb bay si man Mansour seedeel na ko jikkoy rafet yi mu ko xamal Serigne Mbaye Sy Mansour mu joxante loxo ak président Macky Sall photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk Soleil national journal bi boole ko ki kàddu yu fa Macky Sall wax démb mu di li maa ngi jiite Sénégal du ma mës a jóg ci di taxawu këri diine yi ci réew mi sëriñ bi nekkoon ko nañu sax ci luy saxal jàmm ci réew mi ndax jàmm dara gën a koo neex Karim baa baadu dafay bëgg a neexle le quotidien las réew mi quotidien les échos la tribune enquête ak sud du quotidien ñoom ñëpp xëy nañu li organisation des nations unies wax ci diggante Karim Wade ak état bu Sénégal ci coowal traque des biens mal acquis mu di teraanga ju lewul ji ñu doon toppee Karim Wade réew mi nañu waa organisation des nations unies annulé nañu dogal bi cour répression enrichissement illicite jëloon jëmee ko ci Karim Wade la l'observateur bi nañu comité droit de l'homme ba ci organisation des nations unies moo fa jaar moo invalidé layob Karim Wade bi ndax nee nañu ko defee tegewul ci yoon Les Échos nañu comité droit de l'homme bu ONU nee na nañu ko xoolaat ndax ba ñu koy àtte moom Karim Wade dañoo salfaañewoon ay droit am te loolee yoon journal bi nañu juróom benn weer moom la ONU appal Sénégal ngir mu régler ko Ismaïla Madior Fall di ministre de la justice xamle ci journal bi si amul benn organe international bu am maqaamam annulé arrêt bu cour répression enrichissement illicite enquête nañu diggante Karim Wade ak état bu Sénégal pënd bi wuréegul njaw ma ngi cey desandiw xambin ba léegi Le Quotidien nañu daani cour répression enrichissement illicite gàll ci ndoddal Karim Wade kaala bu ñuy waxtaane un cas en débat débat dëgg la journal L'Observateur xëy samp ci xët bu njëkk ubbil yéenekaay bi dañuy faral di wax naan jëm ci làmb ji di bàkku jóge ci làmb ji di bàkku moo gën a wóor yéenekaay bi nee nañu président Macky Sall moom gëmul loolee ndax ñaari foo ko déggee muy wax discours bu mu yëkkati jëmee ko ci wàllu politique la nga cee jàngatee moo di Macky amul sikki sàkk ci ne dafay gagné wootey présidentielle yéenekaay bi di l'observateur dem sax ba di ñu leeralal li mu jàpp ne moo tax président Macky am confiance bu ñu njiital parti réew mi di sa Seck Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne moom xaarul sax campagne électorale bi tàmbali ma ngay campagne lu rëy te gile yoon nag dafa soppi aw doxeen aw dàllam la sol di wër réew mi di déglu askan wi askanu géejawaay takku nañu ba dëgër taxaw temm ci ñu dakkal bande de filao ga ñuy saax-saaxee ci géejawaay direct info nañu kuréel gu ñu naan PAC mu di pôle pour une alternative citoyenne ëmb ay mouvement ak ñu fara ci société ñoo doon conférence de presse démb ci seen dajam ak taskatu xabaare ñaawlu nañu fa nañu fa jéebaane nañu fa jëf joojee bande de filao gi ñuy saax-saaxe ak suufu géej bi ñuy tibbu leneen lu ñu ñaawlu ci seen conférence de presse ba moo di projet bi jëmoon ci tabaxay armeer ngir catholique yeeg musulman ca diiwaanu géejawaay nee nañu projet boobee atum ca lañ ko yëkkati woon ba sax wut fa ñu ko war a def mu di ca wàqi naa waaye ba ñu ko waxee ak léegi dara toppaatu ca lu tax booba ba léegi yëf buusewul meetar bëgg nañu ñu leerala ko laas nañu pàkk di kuréel gu yu ci mel ne la bokk vision géejawaay syndicat national des travailleurs de la culture géejawaay tuumaal maire ca Géejawaay ci ne ñooy saax-saaxe bande de filao gi dem nañu it bay xam ne géej gi ñuy seetaan muy taañaañal wutali dëkkuwaay yi maanaam di avancé dem ñoom xàmmee wuñu ko ak terrorisme gi ñuy xeex ci réew mi source nañu waa PAK Aliou Sall a tuumaal ci mbir mi moo taxit ab jaram doyul woon démb ca conférence de presse bañ doon def ca Géejawaay ginnaaw Géejawaay nañu wax ci li xew ca Parcelles Assainies ubbi l'Observateur benn am këram luyee ko ñaari yoo xam ne Nigéria la ñu dëkk ñaari doomi Nigéria yooyee jàpp doomu waa ji mu di benn xale bu jigéen ba far ko ëmbal